billah bismillah barke borom tuuba asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara gannaaw loolu yi seen naafila guddik tey gi di guddik fukkeel gi ak juróom ñaar ci weeru koor Serigne Souhaïbou Mbacké nee na guddik fukkel gi ak juróom ñaar ci weeru koor ku ci julli fukki rakaa ak ñaar rakaa bu ci ne nga jàng faatiha benn yoon jàng inna anzalnaahu ba saaru jeex ñaari yoon jàng qul huwallahu ahad ba saaru jeex ñaari yoon ku def loolu dees na ko bindal tuyaaba ju toll ne limub ka njëkk a gëm yàlla ba ca ka ko mujj a gëm bu fekkee dafa tawatoon it dana wér bu amee woon ay bor yàlla dana ko fay bu nekkoon ci njàqare dees na wuñ ñi njàqare la te dees na ko musal ci sawara yàlla nanu ko yàlla man loo tanu def ko def ko na mu ko taamoo mu nangul nu ko fulal nu ko làqal ñu ko fu yàq yéegul barkeb Seexul Xadim